sëñ bi Sidya Ndiaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Elisabeth. nga jiite FGTS euh, jiite tamit liggéeykatu euh, collectivité territoriale yi tey justement euh, coow li bëri na si ñoom depuis ba mu amee ay maire yu bees ba tey ñoo ngi dégg ne am na ay liggéeykat collectivité territoriale yi nga xam ne ñu ngi leen fay jëlee tey lan la ñu mën a jàpp justement ci situation bi ci dëkk bi. situation bi dafa simple lool. Hmm. a situation bi dafa maire yoo xamante ne ñoom dañu yaakaar ne euh, li ñu yoree moomeel la ba tax na lu leen neex ñu warko ko def jalgati yoon respecté code du travail bi ñu teg ko fee euh, droit ñu teg ko fee di def le leen neex maanaam jël seen i mbokk seen i xarit seen i coro seen lu nekk di leen recruter ci code local loolu moo indi problème yoo xam ne ne am na ñu koy signalé tey yu réseau du benn. parce que c'est la deuxième fois, enfin, au cours de son, euh, de son parce que le premier mandat, amoon fukki nit ak juróom ñoo ne presque d'accord nañ ne mmh. bii yoon moom ak ñaar euh, remplacer par ñëw ne jege mmh. jege ñaaleem quoi mmh. alors ñun premier mai su ngeen fàttaliku wax nañ ne ko il faut nga wàcc ko parce que ñun mënuñu comprendre ñu ne développement ñoom dañuy jël révision du ñu respecté aucune loi de la république uh-huh. loolu moom nu mu ba pare aussi ñu gis ne président naam tontu na uh-huh. nee na képp ku jalgati yoon dina yoon dina dal sa kaw pare na sax pour révoquer la uh-huh. mais dama koy xamal ne il faut moom mu nekk un homme juste parce que il peut pas moom mënul bu fekkente ne mairie bi ñu ko jiitee bennoo la ñu nekk mu ne du wax dara bu fekkente ne opposition la moom bu ko wax dara loolu moom du sotti loolu c'est pas possible il faut que mu assurer ah mu nekk à deux pôles pour que ñu mën a yoon parce que loolu yoon loolu la wax malheureusement c'est pas le cas euh, le gars de Ourossogui il était parti social la nekkoon mu def transhumance dem APR bi mu demee APR dafa mel ni dafa rakkaaju léegi lu ko def ah moo ñu indi lii vraiment cette fois Euh, njiitu réew mi dégg nañu sax yàgg mhm. donc lii moom waru ko seetaan bu seetaanee rek ah, ñu xam ne dëkk bi yoon amatu fi lu neex waaye def ah, je crois que loolu moom ñun suñu baat ci kaw duñu noppi tey duñu noppi ëllëg mhm. danañ ko jébaane danañ ko dénoncer danañu attaquer ñu nga xamante ne ñoo koy couvrir ah, kon nag nañu préparer parce que affaire dina dem fu sore mhm. ñoom nee nañu altine incha allah ñoom liggéeykat Ourossogui nañu def sit ah pour jeebaane ki nga xamante ne mooy maire Ourossogui mhm. euh, ñun syndicat bi aussi ñu ngi xalaat euh, ban action la ñuy def d'envergure pour que ñu mën occasion interpeller njiitu réew pour que mu jële fi waa ji teg fi keneen délégation spéciale am na révocation am na donc na xool lu ko gën lu ko gënal mu appliqué ko waaye toog di seetaan loolu mënu fi nekk c'est pas possible loolu bu ñu ko koy def euh, loolu par par loolu la euh, defe naa ne loolu euh, kenn du ko seetaan. dëgg la tey Sénégal mérité woon loolu. ay ay maire yoo xam ne maire caaxaankat lañu. maire yoo xam ne kenn xamul fu ñu jógee maire yoo xam ne vraiment duñu dara ay bolle puudar lañu ah du def lu leen neex loolu dafa war a jeex voilà moom. Mhm. il ne mérite même ñu ko jox maanaam takkal ko ndombal tàngam mel ni agent judiciaire de l' état. Hmm. mu nekk de surcroît un avocat. léegi moom mooy jaay ah fi bandi defe naa ne ci daal mérité wul ah ñu ngi ko jox dañ ko war a nangu teg ko fee mu dem ah ci tool ya béy. parce que amatul place fii. <laughs> Ourossogui gi moo ko def tey mais euh, démb yow mi sax signalé woon nga ko ba ngay wax ak njiitu réew mi euh, bés bi ngeen koy jébal cahier de doléance yi am na yeneen communes yi nga xam ne jot nañ ko def yu ci mel ni si cité nga ko Wakaam ak yeneen euh, tey foofu tamit yan résolution ngeen jël yéen. en tant que même résolution parce que am na ñoo xamante ne déjà. Hmm. travailleurs yi dañuy décider parce que ñun dañuy ñëw wax ak travailleurs yi. Hmm. am na ñoom demandé nañu comme arbitrage inspection du travail. Hmm. convoqué nañu benn yoon maire bu bees bi ñëwul. Mhm. mais dinañ convoqué waat parce que ñoom am nañu droit convoqué trois fois. Mhm. Euh, Dieng Mbering ak ñeneen ak ñeneen on fera la même chose tout maire ou toute équipe municipale qui se permet sur la base que yow da nga am euh, mandat te mandat boobu moo leen may nga def ngay not liggéeykat yi. Mhm. yaa ngi ci erreur na nga dellu ginnaaw parce que ñun dañu dellu ginnaaw. loolu dana leer nañ. fan yii di ñëw di ngeen gis ne euh, dinañ jël en charge question yooyu parce que mënuñu nangu ku am ndey ku mu amul ndey nekk ci collectivités locales ne loolu ku ko nangu euh, vraiment mérité woo ci réew tey ndax dafa amul loi bi nga xam ne dina aar liggéey kat yooyu le mu mel ni euh, mën ñoo ngi leen di dàq te dara du ci fekk ñi koy def. ah mais loi bi mooy loi boobu moo géré ñëpp mooy code du travail ah, mooy code du travail donc ñoom xam nañ bu baax lu ñu def ku am contrat même de dee contrat de déterminée sax yoon def la protéger dafa ne tant que sa contrat bi jeexul mënuñu arrêté noonu. Hmm. dafa ñuy noppi ne surtout que fii sax dañ gis ne parfois ñu bind sax licenciement dañu lay ne dama toog kër ga rek ba xaar ma ko vraiment c' est de l' ah, te code de local ñu ngi nii bëgg ko moderniser créer fonction publique locale mais gis na ne ñi ay amateurs lañu euh, vraiment c' est second tomb boobu ndax nag mooy naan euh, njiitu réew mi xanaa lii bu ko déggee moom dana yëngatu jël euh, instruire ministre Mar Gueye des collectivités locales. Hmm. ñu wax ci euh, li nga xam ne moom mooy système indemnitaire bi tey ji euh, boo ñu ko doon xaymaal parce que nag gis nañ ne coow li bëri woon na ci secteur bu ci nekk ku ci nekk jóg tamit euh, di wax ñu corriger kook yooyu tey yéen ànd gësëm ay fan ñu déggoon leen ngeen coow waaye waxtaan mujjee naa am ba ngeen am ay solution lan lañ ci mën a jàpp justement waaw xam ngeen ne ànd gësëm moom bay gësëm rek. parce que régime alimentaire bu ñu koy xeex lu léegi. Mhm. léegi mu mat juróomi at ñoom ñu jóg tànn ñu leen neex régler seen problème ñu bañ a régler problème santé. Mhm. ba tax na dernier plan d'action yi nga xam ne moom lañ kii résolution bu ñu jël mooy tant que régime bi débloqué wul ñu duñu reprendre liggéey. Mhm. defe naa loolu la état comprendre te comme am na possibilité am na moyen dafa doon def dilatoire. mu daal di parce que dañ na taxaw waxaan ñun régler problème loolu tax waxtaan yi jur na li nga xam ne muy ay nuunte lu takku pour personnel santé. Mhm. bokk na ci li nga xam ne mosuñu ko de logement bu war dem de cinquante à cent mille ah d'ici deux ans NMD de risque li nga xam ne mu ngi cinquante mille bu war a dem soixante quinze mille. indemnité mhm. de euh, d'itinérance li nga xam ne quinze la woon ñu doublé ko léegi muy trente mille ak NMD de responsabilité paramédicale bi nga xamante dañ koy graduer ci indice donc am na ñoo xam ne am nañu vingt cinq mille am na ñoo xam trente mille ak ñoo xam trente cinq donc defe naa ne au total buñ ko xayma mun nañ am ne mbég ci lañ jël euh, kontaan nañu trop ci li nga xam ne dane euh, am na euh, c'est vrai que problème yi benn yoon rek lañ koy réglé mais déjà li nga xamante ne amorcé nañ ko am nañ ci satisfaction ñu yaakaar ne liggéeykat yi itam approuvé nañu li ñuy def et ñëpp dinañ continuer di gëstu xool naka la ñuy améliorer davantage situation euh, agents yi parce que agents yi aussi li doon joytu mooy personnel bi doyul hôpitaux yi mhm. personnel bi doyul dañuy jël ay de service mhm. di leen fay su néew donc yooyu tamit ay ay ay ay xeex la yoo xamante ni en deuxième da ngay wax question prime rek mais question globale recrutement personnel qualifié et compétent bokk na ci li nga xam ne naam état bi nee na woy mais ñun gisuñu yooyu bu mu nekk nii hôpital yaa ngi fees del ay contractuel ay ASC ñoo xamante ne salaire vingt mille vingt cinq mille defe naa ne loolu délégation la loolu moom vraiment escroquerie la ah état bi war na dellu ginnaaw mu jàppale ñi nga xam ne ñooñu doomu Sénégal yu nekk ci hôpital yi di salaire bu mhm. décent jeexalee rapidement ak nébuleuse maanaam mbuxum yooyu nga xam ne ñoo tàmbali na feeñ gannaaw ay audits yu ñu def ci ay collectivités territoriales tey ndax li ni mel euh, bu fësee maanaam bu amee bu bu enquête wanee ne am na day am njeexital ci liggéeykat yi. non non liggéeykat ñoom ñu ngi seen poste ah, ñoom bokkuñu ci gestion bi. parce que non ndax day am njeexital maanaam conséquences yi waa euh, boo seetloo mairie. Mhm. bu ñu falee maire wala conseil départemental bu ñu falee moom mooy gérer budget mm-hmm. du ci boole sa adjoint adjoint sax dem nañ mu joytu ne ñoom bokkuñu ci dara dañuy toog seen kër maire mooy def lu ko neex mm-hmm. kon maire bi nag na assumer bu moom mooy assumer parce que moom moo doon gérer mm-hmm. te bari na bi maire yoo xamante ne ñaari commune ngeen dégg temps yaa ngi ne yéen a ngi wax si ñun soo yéen a ngi wax euh, euh, xam ñi wala a ñu ngi jàpp day bëri xam nañ ne ñu ngi ci biir mais <laughs> buñ ko <laughs> bi tam dafa garant parce que état dafa war am code de contrôle pour les contrôles locales yu a verdi bi loxo benn nit mhm. cinq ans mhm. contrôlé woo ko defoo dara de temps en temps bu histoire amee wala ñu am différent nga saa di mission boobu kërëb kërëb kërëb kërëb waa ji affaire bi loolu affaire bi mooy deniers publics. Mhm. dafa may norme boo koy gérer di a respecté. Mhm. malheureusement ñu responsable lu leen nekk ñu def da ngay toog rek ba ñu gën a scandale am na. mais mhm. loolu c'est euh, loolu responsabilité maire bi engagé na mais Euh, état bi tamit nga xam ne moom mooy transfert de compétence. Mhm. warul war na def warugaram a contrôler ah orienté mais du ko def fii lay toog ah boobu moo nekkulee boor politico. Mhm. ñu indi lay problème boo nekkulee boo nekkee ci boor politico ah, ñu tëj seen bët ñu mel ni kumba dama naan loolu tàng ñu koy continuer jox Sénégal. ñu mhm. dem kanam. ñu lay jaajëfal bu baax a baax Sidya Ndiaye. jërëjëf. It is amazing.